doon def feu de joie di sargal ki nga xamante ni moo di Modou Xarañ Lo seen mbër bi seen roi des arènes mu war a jàmbarloo ak Boy Niang waaw Boy Niang mooy loolu da ngay géem rek géem si ginnaawam loolu rek la Pikine ñoo ko moom Pikine loo la sant dégguma Pikine loo la sant waaw ah, day daw rek Pikine la santee loo xam nga ni confirmé loo bu ñu daanee booy ñaan pare ngeen comprendre santal ko loo. bu ñu daanee booy ñaar na waaw nañ nañ am lii rek jox ñu miin. ñu ñooy waa élément faux piste bi dañuy daw rek amuñu ere. Ah? billaay ñu ñooy waa faux piste bi duñ mus daw si ay piste piste yu nii nii dañuy daw rek amuñu ere mu ngi loolu rek la ñuy topp parcelle lañ dëkk ay doom PA lañ. waaw suñu mbooloo takk rek la ñuy topp. bilaay moo tey tey si guddi nii sax si guddi nii sax bu paree woon ñu bëre ko. wala si guddi nii su paree si guddi nii nii nii ñu bëre ko barki alxuraan. bu amee fu yaatu nii. si ah. ëtt bi barki Seydina Mohamed yaakaar naa sama mbër ñu bëre foofu noonu. bilaay wala si kaw lal bi si kaw lal bi. bu bëggee ñu bëree foofu. war na si kaw lal bi. Hmm. bu bëggee ñu si kaw lalam. mais mais mais boo ñaan gis ngeen open press am nee na moom pare na côté yëpp. boo ñaan xam ngeen moom moom mbëru ngéwél la day wax rek kooku eh. kooku fu mu wax kooku fu mu yàgg wax wax ka fa yàggal waaw mais ñun du ñu ay waxkat Mawlo mënoo ko dégg muy wax yii nii nii moo daaga mënul xeex bu jour boobu waaw bu mu barrière saako yi na taxaw si digg bi xeex ak Mawlo bu dee lu muy wax dëgg la. mais est lu muy wax du bu muy teg noonu ci li nga xamante ni moo di face to face magum lay teg lay teg kii lay teg molo Mawlo kenn da ngaa mën a teg stratégie si làmb ak mu jaar kooku mooy bandi barke alxuraan boo leen dajee si géej lu mu la waxul di jaay nuyu naa la. Ah, maa ngi lay fay. ko waajee. waaye combat bii nii billaay bu ko jëree léegi léegi léegi ñu bëre dama koy daan saay maa mën maa ëpp doole maa dàq bëre maa dàq dóor booy bi lu mu ma woo dama ko siy wuyu. bari ñaan lu pare pare pare eh, ñun fépp. fàttu fépp déggoo ma de. xam ne woon du si def taw. moo yéen dañ rek waa Pikine ñun ñoo moom. buñ paree rek buñ daanee Boy Niang ba pare nañ am lii rek jox ñu suñu mairie ñu téye ko. ngeen doon chef waaw waaw chef de quartier gérer mairie beeg yëpp. barki Seydina Mohamed. gérer caaro yi. bu jaree sax ñu doon président président Pikine sax jar na ko. Modou Lo la sant. Pikine loo Pikine mooy suñu osan. dañuy dugg ndugg génnaat dem toog. dégguma dégguma la wax la wax dama ne Pikine moo suñu osa Pikine mooy suñu osa barki yàlla dañuy dugg ndugg génnaat suñuy jàpp sàcc lañ moo xanaa doo dégg Pikine caga Njaay ah, dégguma dégguma Pikine caga Njaay xanaa doo ko dégg xanaa doo xool ya lu sëñ Fall Pikine xoolal suñu lañ jaabee ay ñoom booñaa ñoom wax rek ñun moo la mooy suñu roi mooy suñu lépp bar sëñ Fall balaa ngay mun a xam loolaa la bàyyi stade bi ñoo moom suñ osaar comme gan lu mu war rek Pikine mooy suñu osaar foofu lay jëndee lépp suñu rafetaay maag lépp foofu la koy jàppee. baala mbala Zavia. Ah. mais mais Boy Niang dafa ne démb na. pare Modou fu mu ko muyu ko. mais Boy Niang si signature bi lay toog comme ni ko di waxee rek foofu lay toog micro yi tiim ko muy wax lu ko neex rek. mais bu Modou Lo ba sëñ Fallou su ko jàppalaa da koy dóor-dóor yi métti. bilaa wala wa taala ñun Modou Lo rek lay topp passé lañ dëkk. titre foncé suñu osaar la foofu la ñuy jàppee suñu rafetaay ma ak lépp barke sëñ Touba bi laa walaay. yow ma ne open press bi dafa lan. daa xaay daa xaay. open press am amul mbooloo comme nii nii. mbooloo dafa law ko. di nga góor nag ñu mën loolu la ñuy toog defal ko teew neexal open press ñun Modou Lo rek la ñuy topp suba 15h ñëwal stade da nga baax rek saay saay si biir da nga baax rek ñu ne fu ñu dem ñooy gérer barki yàlla koo piste bi eh boo bis bi amul Dija naa la rek. <laughs> fay naa la. tey ma fekk la fi nga xamante ni moo di feu de joie bi ngeen doon sargal seen seen mbër bi sen champion bi muy roi des arènes Modou loo war a jàmbarloo ak ki nga xamante ni moo di Boy Niang naka ngeen ko waajee. non ñun instant yi pare nañ de si moom la des bu bëggee léegi nii ñu bëre ko. billaay wallaay day daw rek amul arrêté. billaay xalaat ñaax la. Hmm. Ah, élément yaa ngi nii ñu pare nañ de. waaw billaay pare nañ. booy ñaa dafa feesal stade bi ngeen ne booy ñaa dafa feesal stade mel ni dëj. waaw dëj ah, ah, naa. waaw baaba le premier ñoo lay xaar. a presse waaw open presse 15 heures. ñëwal. waaw bi. booy ñaa moom amul lu ñu koy wax. leneen lañ koy wax mën na taxaw dëggal boppam. ñi ñooy band pasal ku fi ñu gem la gem ñu sa ginnaaw ñu ragal ñu fuñu jëm barke alxuraan kër ñu moo la lañuy topp boñaa na del lak abun presse bi trois personnes la ñu ñooy yëngal billaa wala taala boo xoolee frésoa bi nga xam ne ñu ñooy yëngal parcelle waaw di si kanam raw li bët mais yéen da ngeen ne parcelle Auchan ngeen ko mburu dañuy ñëw jël suñu saan di yoon donc naa ngi jël parcelle moo mën Pikine def rek ah, moo mën Pikine barki alxuraan barki yàlla Parcelles moom Pikine si football si bëre ñun ñëpp bul tax ma wax football même football mer mer sax a mën. waaw barki yàlla ñoo liir liir liir yii di football liir ak liir Pikine parcelle mooy gagné déggoo yi ma la wax moom suñuy nooy nee lañ suñuy jàpp sàcc. waaw xam nga jàpp sàcc. bon te ñun waa 24 dañu am lu neex le 30 dañuy fubal gagné le 31 est-ce que gagné loo daan xanaa loolu. waaw waaw waaw mais léegi ban way ngeen génneel Modou Lo roi des arènes bi li nga xamante ne jour bésu bi ñu xaar ko ak asiko yeeg yooyu. waaw dirima bi mi ngi fi. dirima dirima. dirima di dóor bëgg naa toojal ma mbari dawuma génneel ma góon e, booy ñaa dinañ la gem dañ koy gém gém ñu si ginnaaw barki alxuraan kariim ñun waa foo bis bi lañ amuñu arrêt daw rek billaay wallaay boo ñaaw moo la gën a am day ñàkk moom mbëru ngéwél la day woo rek. seen biir am na kuñ fi li njaa daam ku ñu daam ku ñu dénkool mu yow ko te ñun xam nga kenn luñu liñ caa war na yàlla kóol bu la neexee suba nga ñëw ma wala ma ma wan la kóol bi suba am nga jot ñoon ma wan la kóol bi ñun kenn luñu liñ caa élément faux bi bi la dañuy daw rek kóol bi quoi doo xool xanaa ñun dañuy ñu war na yàlla topp ñun ana Ama Baldé dafa daw ba daanu. ana Eumeu Sène dafa daw ba daanu. kon nag boo ñaa yemal munuloo ma jooyloo bu ñu dawee da daw ba daanu. meeru Parcelles meeru Pikine. waaw Modou Lo. billaahi. le xalif général xam ne Pikine duñ seen morom. billaahi wallaahi taalaahi. Modou kese rek. Unité 24 dëkk la Unité 24 dëkk la. waaw bii suñu ASC bi mooy finaalu. la 30 la 30 la ñuy finaalu. incha allah dañoo a jël final bi waaw bu ñu jëlee bi la 30 feetee ko fii le premier ñu ñëw daan Boy Niang. incha allah incha allah bi neex waaw. Ah, waaw jërëjëf kontaan nañ si yéen seen liggéey rafet na barke maam Serigne Fall si kaw si kanam rek waaw merci kontaan nañ. gis nga ko waagaan mi ngi noonu feu de joie bi léegi léegi la woon gis nga ko terrain baa ngi nii ak apes waaye gis nga li nga xamante ni moo di soppe yi ak am di jàmm yi di bëggal chaque jour seen mbër yi te lii dafa am solo. ñi nga xamante ne ñooy teewal ñooy représenté gox Modou xarañ loo parcelle la wax. amul un ba vingt six ñëpp la teewal waaye gis nga ko mbokk yaa ngi nii xale yaa ngi nii bàyyi seen nelaw ngir lan ngir bëgg moodu am ndam lépp ngir bëgg nekk si ginnaawam Wagan nii lañ ko defee saa ne dañuy topp kaa yëpp du ñu bàyyi dara jaajëf jërëjëf mbokk yi gis ngeen ko noonu yaa booy ñu ngi ko fekk ba fi nga xamante ni moo di teere ak pes mu tekk njaayam di mbaxalu Saloum nee na mbaxalu Saloum Modou Lo la <laughs> yaa booy ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay sëñ bi di leen nuyu. di leen sant di leen gërëm nag ñu ngi di kii daal di leen remercier ci ni ngeen di def. seen liggéey naaj na rafet na macha allah. tey xale yi doon sargal du xarañ loo comme ni ñu koy defee saa su ne. Mm. doon def feu de joie di ko bégal avant li nga xamante ni moo di open press am naka nga si jàngatee loolu noonu xale yi di ko defal di bëggal seen roi des arènes bi di Modou Alliance Xarañ Lo. Hmm. macha allah ni ñu def moom macha allah mu wax dëgg si yàlla di gën a yokk courage Modou rek di ko wax mu gën a am jom. Mhm. ndax luy jom a ko gën. yaa ngi dégg bu gëstoo gis xale yi ñu en ñu def ko nii. Mhm. Euh, day day gën a farlu daal. Mhm. day gën a farlu. incha allah rabbi am naa am naa ci yaakaar daal ci Modou Lo. am nga si yaakaar am naa ci yaakaar macha allah. parce que ñun waa parcelle moom lañ bëgg moom la ñuy tiitaroo te moom la ñuy ndamoo. Mhm. barke Serigne Babacar si ndam rek ndam rek. mais bu mu tiit bu mu daw bu mu ragal na def ndànk te xam ne xale lay bëreel. mais ki muy bëreel. Mhm. boo ñaanee na pare na fépp fat day fatt fépp loolu naka ngeen ko jàngatee. non foofu fatt fépp moom mënta ne moom fatt fépp. pour ah. Modou Modou loo du ko may saala yaay coppati. dégg nga Serigne Babacar du ko may saala yaay ndeer bu yéexee rek Pikine ñàkk ko Pikine na waa Pikine du ñu reer déggoo ma de le premier. Hmm. waa Pikine du ñu reer bu ñu yéexee. wala bu ñu xefee du ñu gis. du ñu reer billaay du ñu la wax lii. mais mbaxalu Saloum bi ba Modou dina fi ñëw di jël ay palaat. déggoo léegi la fi xaritam bi jógee Miniru. moom par cinq plate lay commandé par cinq bargeton kii lay commandé fiiriir dëgg neexul mais Modou laa wax ba diñ ko jox moom si mbaxalu Saloum bi wala papis wala papis xarañ loo sax ñoom ñëpp laay jox ñoom papis ak ñaa xarañ loo waali sekk ñoom ñëpp laay jox <laughs> ndeysaan mi ngi noonu wàllum bi <laughs> eh, xoola maa ngi nuyu nag sama xarit yi di nuyu waa ACAPES di nuyu sama clients yi ak waa Manko ñi nga xam ne ñu ngi préparé final bi samedi yàlla na leen yàlla may ndam di nuyu nag suñu waa dëkk xombal xombal laay tiitaroo ah. di leen sagoo di leen ndamoo dama wut si fii rek mais ngi noonu